Mor Talla daanaka wax ji wax nga ko dama ji sànni ay kàddu yu néew rek ba tey bu ma noppee nga gën koo jàllale. leer maanaam puus-puus yooyu nga xam ne ñi mënta dox dañ ko moom lañu yor moom laa bëgg koo xam ne maay si jëwriñ nga wut ci benn. andikoo fii ak koo xam ne bëgg nga cee bokk rek tam gannaaw lu baax la ñu ñu dajale ko ñu ñu jox ci jox ko ñi nga xam ne mënu ñoo dox euh, welo yi nag man gis naa ne bokkuñu man gis naa ci ay ay melo yu bari waaye nañ seet yi gën a baax nag gis naa ci yoo xam ne boo ko boo ci toogee say tànk daanaka du tege day lang mën naa mën naa mën mën naa jaar ci mën naa tegu sax ci suuf am na yoo xam ne itam boo ci toogee da am na fooy teg say tànk yooyu nag moo gën a baax moom yooyu moom ku ko mën a wut moo gën Euh, ku ko mënta wutit beneen boobu mën a wut te bu bu bu baax rek bu bees rek nga wut ko euh, maa ngi ñaanit nag kenn ku dégg wax ji xam ne lu baax rek lañ ci yublu euh, liggéeyal ci yàlla yonent ak sëñ Tuubaa ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne lu baax rek ku ñor itteem yépp mooy lu baax naka jekk nag mu ngi ci ci ittewoo lu baax waaye nag dafa raw léegi bi mu doonee bi bi dafa rawati nag léegi bi nga xamee nag mooy Sëriñ Tuubaa toogaayam bii képp koo xam ne xalaat nga lu baax loo xam ne soo ko defee rek muy mbégteem war nga koo def te moytu lépp loo xam ne lu koy naqari lay doon loolu daal moom laa ne woon ma ma sànni ci sama ñaari baat boo noppee sëñ Mortala Fall yëggale ko wala yooyu daal laa bëgg mu bari lool nag mu bari lool nag yu tàmbalee ci benn ba ci fukk daal ku ko mën baax na ba lu ko ëpp sax lañ koy dajale lépp mu bëggoon naa nag bu feeg euh, safar lépp daje bi bu jëkk ci weeru safar ñu tàmbali ko joxe waaw amul nag xëj ak seen ak ci laa bokk ak waruma cee bokk ak mu am naa ci ak lu ma ci am lépp ñëpp ko moom bu fi dajee daal ku bëgg rek ñëw la te buñ ci yeggee itam kuy ku ñëw booy jël sa sa sa bos dinañ ci boole waale as weccit asweecit waaw ah asweecit bi baax na ci di dañ ci boole as xaw ma xaw ma xaw weccit bi nag xaw ma dana bareem du bari waaye danañ ci boole daal asweecit eh, am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw eh, andi xaalis ne ma bi eh, njëgu weloo ngi nii njëgu njëgu puus puus baa ngi nii léegi nag man xaw ma njëgu puus puus ñaata la xaw ma fu ñu jaay puus puus daal laa wax mm. waaw bu kenn andi xaalis dama ko jox